jëf ya, auditeur oh, yu gaay Info eh, ak auditrice yi tay nak ku ñuy waxtane man nañu wax gor gi Ali Mbodj radiyallahu taala nu lu waral lolu ci kanam tuti di ngeen ko xam ndax tay ji bi ñu di waxtaan bo tabarakallah tabarakallah tag katoro Rasulullah yi nek ci gaay dal di ñoy tagg fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tombeel moo waral ay gaaf waaye lenn du hasard ndax Aliou Mbodj ku bëggoon yàlla la ci di ko jaamu ku bëggoon Seydina Muhammad salaayu alayhi wa la waaye ku bëggoon fonkoon diine ak mbokk yi Aliou Mbodj moomu nag tey jii moom la ñuy waxtaanee ndax ba ñu waxee li tax ñu jël Aliou mooy gaaye dafa yaatu tey bu ñu waxtaanee carag soxna Dégène ñang Dégène ñang moomu ñu waxtaanee carag buñ ko waxtaanee xam nañu ni moo liaisé Dagana ak gaaye ci mbokk waaye Aline Mbodj mii tey moo boole gaaye ak barag yi gaaye ak waalo waaye gaaye ak mbilloo kon kooku tey jar tax ñu waxtaanee ko ba waa doomaanu gaaye xam ni ñoom ñooy deratu mbilloor waaye deretu mbilor xam ni ñooy deretu gaay ndax mbokk soo xamee sa mbokk rek di nga moytu ci wax ju ñaaw di nga moytu ci jëf ju ñaaw di nga moytu ci yéene ko sax lu bon soo bëgg boo gisee sa mbokk nga xam la nga bokk ak moom dina tax nga jàppante bu baax a baax góor gi mbooj nag nit ku baax la woon kon tey moom lañuy waxtaanee. waaye Mayoro ñu ngi kontaan ci waa Gaya Info waaye di kontaan ci waa Nouakchott tey jii nag dañuy waxtaan jëkkee nag nuyu suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñu jiital imam akbar imam Ahmed Sow imam ratibu Gaya ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu imam Sidi Ahmed Niang ca juma bu lay di ak ay imam yu mu àndal yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu man ñi nga xam ne ñoo saytu goxu gaaye yépp ndax gaaye ci gox la paso alaaji Ousmane Gueye Khady Ba ca njoor na ñu koy nuyu di nuyu alaaji Ibrahima Niass ay ko di jalak de gaaye waaye ñu ngi nuyu itam alaaji Abdou Fall Maguette mi nga xam ne mooy mag ci paal ca gaaye waaye suñu jógee ci loolu dañuy nuyu alaaji Ismaïla Diagne mi nga xam ne mooy mag ca mboqal ca gaaye suñu leen nuyoo nuyu nu ñu magu gaaye yépp di nuyu borom dëkk yi alaaji Rawaan Fall ñu ngi koy nuyu Mamoun Tafal ñu ngi koy nuyu Bintu Soxna di nuyu monsieur le maire Abdou Khader Ndiaye maire de la commune Gaye ñu ngi koy nuyu di nuyu délégué quartier yëpp di leen ziyaara waaye dellu fii ci Nouakchott comme nam ko daan waxee di nuyu alaaji Mbët Jikka Ñang mi nga xam ne mooy kilifa yëpp yal na yàlla dolli wéram ñu ngi nuyu Serigne Kadiar Serigne Kadiar Mot Fall a Ñang fii ci Nouakchott ñu koy nuyu di nuyu Baye Ahmed Fall di nuyu sëriñ Babacar Sow waaye di nuyu sëñ kër Guèye sëriñ Ablaye Guèye di nuyu itam góor gi nga xam ne mooy suñu baay di Sidi Diop ñu koy nuyu ak ñu fi toog ñett tey mbokk yi góor gi Aliou Mbodj doomu waalo la góor gi Aliou Mbodj baayam mooy Mouhamed Seynou Mbodj waaye yaayam mooy Roqee Ñang góor gi Ali sëtu Barak la góor gi Ali Mbodj sëtu Jadin Ñang la góor gi Ali Mbodj sëtu Damel Déthié fu njéegu góor gi Ali sëtu aram loo kumba caam la góor gi Ali Mbóoj sëtu mel ñang la maam Moore maam Maxtaar ab sa golo Njaay waaye góor gi Ali satu sëtu njaajaan Njaay la ki sëtoonam ci ñii ñu wax yaakaar naa ne yow yaay Sénégal waaye yaay waalo kon ñu jàpp ni kay njabootu kër Ali seen baay moo lëkkale mbiloor ak waalo waaye mbiloor ak gaaye góor gi Ali nee naa la sëtu Njaajaan Njaay la ndax Njaajaan moo jur Sëriñ Njaajaan Njaay Sëriñ Njaajaan Njaay moo jur Njëglaan Séré Njëglaan Séré moo jur Mbañ Njëglaan Mbañ Njëglaan moo jur Kumba Njaay Riket Kumba Njaay moomu moo jur Céré suñu ñëwee ci góor gi Ali Mbodj ci Njaajaan Njaay ba tey Riquet Birane Lobi Njambaan Mbodj kooku nag moo jur Riquet ma jaxeer Mbodj Riquet ma jaxeer Mbodj kooku moo jur nag ki nga xam ni nag mooy Birane Mbodj Birane Mbodj moom moo jur Mouhamed Seyni Mouhamed Seyni muy moo jur Ali Mbodj kon nga gis ni tey foofu mu jógee si njaajaan njaay sorewul kon Ali Mbodj moog ay njabootam yépp sëtu njaajaan njaay lañu Ali Mbodj maamam ma jaxeer Mbodj moo sanc Mbilor en 1737 kon nga gis ni Moustapha Mbodj nii sa maam bu ñu waxee Mbilor man nga taxaw ni sama maam ma jaxeer Mbodj moo sanc Mbilor 1737 kooku moo jur Birane Birane jur Ahmed Sénou Ahmed Sénou jur Ali Mbodj kon sorewul kon yaakaar naa ni kooku tey ñu ne Ali Mbodj kenn moo ko jur ñu ni Roqaya Ñang mooy yaayam Roqaya Ñang bu Faatu Ay Ball Faatu Ay Ball bu Tamsir Moodi Tamsir Moodi bu ma dikke Moodi ma dikke Moodi Moodi Jadin modi jadi bu jadi nyang maam moo rek ab sa galo njaay kon bu ñu nee jadi nyang sorewul koku tay ay balla nak tamsir modi ko jur waye tamsir modi di jurul ay balla kese njabote na ndax bu ñu waxee jàmbaar ji mak joju Bakar Faati Yamar tamsir modi ko jur waye tamsir modi damay samp sama barang, gaay soo gisee El Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallaahu taala mu daan wax ni gaay yi libéru leen yaakaar naa ne El Hadj Abdou wax na gaay yi leen waaye ñun waa gaay yi dégguñu ko te war na moo dégg nag waxu El Hadj Abdou Aziz Dabakh nee na gaay yi libéru leen li tax libéru ñu gaay yi duñu ay ceddo yàlla moo def fonk gaay yi bi gaay yi nekkee fële ca Kaajaar. Kaajaar dafa situé ci diggante Trarza ak Baragna lieu bi mu nekk kenn yilifu ko Trarza yilifu ko Baragna yilifu ko foofu la yàlla def Kaajaar foofu la meññee ko xooma séeréer yi fa jaar mooy ndox ma kawe mi ci baatu séeréer foofu la gaaya nekkoon mag yi ñëpp nga gis ñu wax leen ñeen ñëpp seeni maam dañu fakkal lislaam dëgëral lislaam jadin gang soo waxee wali yu mag ñuy jadin ñang maam moore maam maxtaar ñépp bëgg danaa ñëw ni la nag satu deccee fu njéegu la moom Aliou ndax deccee fu njéegu moo jur dammel amari ngoone sabel mi libéré woon kajoor amari ngoone sabel moo jur dammel njaga sàmba Njaga Samba Fall sant waaye yaay je tàkko moo jur tàkko Samba tàkko tàkko Jeng Samba tàkko moom moo jur Njaga sàmb Njaga sàmb moo jur Maar Fall mu waree Garak mu waree Kaajaar wàcc Garak Maar Fall cere bu mu waree Kaajaar wàcc Garak waaye boobu fekk na Maar Fall jàngee na ci daara Amari Ngoone ci daara Pire Ablaye muy daara Pire bi Amar Naar Fall ca Naar Fall foofu la jàngee alxuraan ba jënd alxuraan yàlla def Naar jàngaale almaami Abdou Khader Kan ca baayam jàngaale Thierno Souleymane Baal mi nga xam ni boo waxee Thierno Souleymane Baal njabootam Ibrahima Baal rek meññ na baaleenu gaay gépp ak ñi ci bokk kon nga gis ni. bi mu ñëwee ne Kaajaar garag la wàcc marfaal ñu may ko fa soxna soxna suñu naan xorojoj mbooj mu taawloo ci doomu góor mu am ci nag ma demb faal xorij mbooj kooku mooy taawu marfaal ma dem faal xorij mbooj foofu su mu ko waxee damay laal sëriñ Kaajaar bàyyi moot faal may rama ñag male ndax ma demb faal xorij mbooj moo jur Makhtar Fall Kara Makhtar Fall Kara moo jur Siri Yokob moo tax ñu naan kër Siri Yokob ñooñu ñooy taawu Mar Fall bi mu feeñalee li mu bëgg muy nguur garag ni que nag fii mboojeen ñoo fiy fal mooy barag yi mu rëppatal ndekete yàlla mu ngi koy orienté ci suuf si sell suuf soo xam bi ay lislaam yi kese ñoo fa nekk moo doon kaadaar boobu ñu naan dëwu Fall carak bu mu len àttee ci digënté mool yi ak samakat yi jalak de ma demba ñas jur asan ñass motax jalak di ka sosoo ci ma demba yaay jalak de mom mom mo dalal maar Fall waxtaan ak mom ci xel mu rafet nu mu leen àttee ñu ne ko lan moy sa tank mu ni nguur rek moy sama bëgg-bëgg fi ma tok nek nguur ñu ne ko togal nek suñu bu serigne kadiar ndax njàng gu mu jàng alxuraan ñu naan ko sëriñu kaajaan ñu may mu ne leen nag man fi may toog dañ ma fay may soxna ma man fa toog ñu dellu may ko seen jigéen tena ñas yàlla def maar faal am fa yokk faal tena ñas ak unta faal tena ñas unta faal tena ñas moo meññi ali mbóoj yokk faal tena ñas dem njool na denc fa jigéen ji ñu naan kura géy mu am fa Mandiku Fall Koura Gueye Moussa Fall Koura Gueye Warxa Fall Koura Gueye Farmata Fall Koura Gueye kon yaakaar naa ni gaaye ñaseen ci paal ñoo jur ñenn ñi waaye ngeen ci paalatam ñoo jur ñenn ñi kon nga gis ni mbokk googu kenn ku nekk war nga kaa sàmm kenn ku nekk war ngaa fonk loolu almaami Abdou Khadir kan la sëtu almaami Abdou Khadir kan la ndax almaami Abdou Khadir kan moo jur Aysa kan Aysa kan Cawde foofu daan ci ñëw nga gis ni góor gi wax naa la ni la moom góor gi Aliou satu aram lo kumba cham la ndax aram lo kumba cham dañ ko jëk may tamsiir ma samba ñang mu tawlo ci jigen mu yag ñang aram lo. teg ci babakar ñang aram lo, teg ci maram ñang aram lo. caat lo ci mom tafsir ma samba ñang awa aram lo. sey ba tebeku ñu jël jigen ji aram lo kumba cham dénk ko Sandé Wele mi nga xam ne moo ñaanaloon waralu ba jolof yilifu kajoor yilifu fuuti yilifu leen Sandé Wele moomu moo ñaanal waalo ñu dënk ko jigéen ji aram loo kumba caam mu am ci daramaan wele daramaan wele moomu moo ñu jural bakkare wele ak mayoro wele bakkare ñu jural faa wadde wele Fawade Wele moo nu jural li àdduna ak laaxira muy Seydi Hadji Malick kon kooku nga xam ne tey nga gis ni yàgg njang bu ma ñëwee ci Marème Njang nag Marème Njang aram loo dañ ko may kooku moo jur Birame Samba Birame Samba moo jur Yirim Samba ak alsamba fofu boko topé da ngay delu ci Ali Mbodj waye da ngay ñew ci Baba sëñ Babacar si radiyallahu taala nga gis ni Yirim Samba ñu may ko nag Ayta Mbodj sàcceeri mbaj Ayta Mbodj sàcceeri mbaj mo jur Ayta Yirim Samba Ayta Yirim Samba ak warxa yirim sàmba ak yokk yirim sàmba su ma nee yokk yirim sàmba nag Ablaye Gueye dugg na Ablaye Ndiaye Gueye ñoom dugg nañu ngéyeen dugg na moo jur yokk yirim sàmba waaye nag aminte yirim sàmba mii aminte yirim sàmba moo jur Michel Michel Fall la sant Michel Sambay Naar moo jur Ali Boy Ali Boy Michel moo jur umu xayri moo jur Roqee Njaay ak umu xayri Njaay umu xayri Njaay moo jur Moussa Fall Moussa Fall moo jur Ablaye Moussa Ablaye Moussa moo jur Soxna Ablaye Soxna Ablaye mi yar Umar Gueye Fodé mi mu jur Saybatu Ñaw waaye Roqee Njaay Ah, koku mo moo jural nak lumière bi nga xam di koku wuutu na bayam ci ndundu bayam juróom-ñaari at bayam dogo a làqu muy Serigne Babacar sir radiyallahu taala kon montrer bax yi ñoo bokk heure li gaay suñu xëccee mbokk fu nekk ci baax kon doomu gaay warul yaq lolo tax allah jabb du joxañ leen ni gaay libre len libre gi nak du jaagne ko dañu añ bu rek wax la lu neex wala nan suñu attaay wax lu nu neex jamono jii nag génération bu mujj bi laay joxoñ mag ñi dañ daan wax doom mujjee pusa bi mu réer gàcc la kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk gaaye ba maam yi fakkal nu wëye mag yii ñun ñooñu ñëpp war nañu topp gaaye an bi damay xaar ba émission bi jeex ndax émission bi moo fi dajale nit ñi kooku Moustapha yow laa koy ñaan du yàgg ndax témoignage yi ñu bare war nañu waxtaan suñuy waxtaanee dugg ci émission bi émission bi nag dana bare ay surprise ndax kuñ koy defal muy góor gi Aliou dinaa nettali benn anado góor gi baaba kër Gueye dana xam kooku dama dëkk ak kër Moustapha Diallo sama mbaay mu dëkk ak Fatim Fatim Diagne ñu la ñaari buntu kër yi ñooñu ajor lañu góor gi jigéen ji ni waxtaan mune ma doom gaay nga bok mané ko gaay la nga bok kay mune ma ndax xam nga Alim bo mané ko koku Amet Seenu moy bayam waye jigen ji ñan sa tu jëdin ñang mooy yaayam mune ne ma dina la yegal ni la Alim bo fii la nekkon ci Ndar def boulangerie bi mu jofee boulangerie yàlla boole nu nekkoon fi ñu nekkoon ca noor mu téyeenu géyam nu ba tey ñu dellu yàlla natoo ma dem Mauritanie gis nga kër gii dama di liggéey di dénkaali mbooj mu maa gardeel di liggéey di dénkaali mbooj mu maa gardeel ba ma mën jënd teere fii ci Ndar dëkkal si dëkkal ci samay rak ma ne ko nag taawam a ngi nii mooy Babacar Adama ndax moo jëkk dugg ci kër yaakaar naa Babacar Adam mënul wax ruyu jigéen ji wala wala fonde ji suba teel foofu ndax moo denc sama jigéen bu baax boobu Asifal Diallo moo tax kanam gi belli wala kon mbokk yi Ali wax naa la ne la sëtu Abdou Khadre Kane la Abdou Khadre moo jur Aïcha Kane Aïcha Kane moo jur Tamsir Modi Tamsir moo di moo jur ay ball ay balla jur Fatou ay ball Fatou ay balla jur Roqee ñang mu jur Ali kon kii sëtu Abdou Khader kan la mi nga xam ne nag moo jàllee gaaye moom almaami Abdou Khader kan en 1786 moo wax dagana puusal parce que dagana ñaari dagana la dafa am dagana ceddo ak dagana cëriñ dagana cëriñ ñoom ñoo gàmmu barki démb Dagana cëriñ ci Fuuta lu ñu bokk ci moomeemu almaami Abdou Khadir Kan moo tax boo demee ca rond-point ba fa Dagana cëriñ yem ceddo yi ñoom dañu fa samp seen béggiñ ba léegi béggiñ baa ngi dafa bare yaa am symbole ci dëkk boo ko laajtewul doo ko xam Dagana cëriñ nag fa la jumaa ja nekk fa la ñu denc Alaaji Ablaay Sow fa la sëriñ si nekk Dagana cëriñ googu ak bokkal ci moomeemu almaami Abdou Khadir Kan maamu Tafa Mbóot ca la ñu nekk gaay waré xex ak Kaajaar Abdoulaye Almaami Abdou Khader lolou soré na waye dal gaay def na intervention ci xam-xam ci lepp ba gagné naaru trasa yi almaami tuubal ña bare ndax bofu wal allah bi dafa lewul almaami mom nak mo jur aïcha kan aïcha kan jur tamsir modi tamsir modi jur ay balla ay balla jur fatou ay balla fatou ay balla jur rokay ña jur jur alimbooñ Ali Mbodj mo jur Moustapha Mbodj mi jakarlo man kon koku tay mu dugal gaaye ndax gaaye bokal ka a waye waaye mo mak bokal gaaye dagana ka mak waye waaye dagana mi dugal gaaye ndaysan ba yalla defé aduna di dox ba nga xamni nak 1928 ci la yok jëw kay nekkon Serigne Kadiar ni dem alma ni tubaab bi léegi ñun di fay galak ca Podor sore na si ñun ci sonn noonu te addunaan ci ñun ci kanam suñuy njaboot duñu mën dem Podor loolu ñu génnee département Podor indi ñu Dagana waaye tubaab bi xam ni yokk jëw gay jaajante na ci xel mu nekk ko da ngaa wàcc dootoo nekk sax Serigne Kadiar mu ne ko ndokk waaye rek gaa yi dana ñëw Dagana man loolu bu ko amee mission accomplie ñeen di gaa yi département Dagana fal monsieur Ibrahima Guèye en 1930 ba 1960 mu feebar ni mënatul joxe mënatul mu joxe ñu jox Abdou Ahad Serigne Kadiar bu mag moo jur Modou Mayram Niang male moo tax ñu ko wax Serigne Kadiar Abdou Ahad doxal doxal doxal ba feebar dab mu ni mënatul def wax gaay yi mënatuma yor ndax mage naa feebar naa gaay yi tànn Serigne Kadiar ñu jox Modou yoro Modero momu nak mo jalle gaay ca wàllu teli bu def japp yi 1972 ñu fal ko ndaysan ba 97 mu bayyi kon nga gis ni gaay yàgg nañu am ay voleur kon ablay émission bi fi mu nek dama bëggoon sore ci mam yi waye bu nit ñi xifé man nañu am lu la dégg lu du bare té témoignage yi bare nag ci babakar man kay nuyu Babacar sama sëriñ ndax góor gi nitu yàlla ba mag ba di mun ngay atta jaañ moo gënoon soxor ci sëriñ si yëpp waaye yàlla def na man dafa lewatoon ci man moo tax barewu ma xam-xam sëriñ bu la yërëmee rek doo am xam-xam su ma xëyee dinaa jàng ñaagam ñaagam ci àllaw bi su ngoonee ma nelaw mu ni bàyyi lekk ñu tëddee ma xëy jàng gonta nelaw ndax yërmande moo ngay atta jaañ ci man kooku nag bu juree Babacar Babacar sama sëriñ ma mujj mottale ji ca daaram ñi ca beneen mun ngéy ba ba fa ba fa ba fer fa xulluwa allahu axat ak ñoom seen àggale ci Ousseynou Ba rek mu forcé ma defar ma ma la maa jullee dikk ca am kon Ablaye kii nuy waxtaanee muy góor gi Aliou su leen déggee témoignage yi tey te ñii ñëpp kenn ki ci nekk ñii ñoo dund ak moom Babacar ñoom ñii ñoo dund ak moom góor gi Sidi Diop ñoom ñii ñëw dund ak moom Ablaye Gueye nii Baye moo ko dénk sax Moustapha kon yaakaar naa ne ñii tey Baye Mot Fall ñoom Pape Serigne Sow ñoom Pape Ahmed Fall ñoom ñooñu ñoo xam Alim Mbodj fii ci Nouakchott waaye daañu jot ay témoignages gannaaw bu ñu leen jotee ba pare daal dugg nag Ablaye Ablaye duggoon naa ci njëyeen foofu xam nga gaaye bi ma jugee ci kuréel rek. moo jur ma ndikku faal kura géey nga gis ni paal carak ba ma ndikku faal kura géey nag nekkee sëriñ kaajaar mu xaritoog ma sukk jóob bu sàmba jóob ak raxitaal ñoom moom itam mu jógee ca maram ñan aram loo kumba caam yàlla def yaayam nekk njool na muy sëriñ kaajaar di buuru gaaye moom ma ndikku faal kura géey bu guddi jotee dafay jël reer jox ci suq yi ni len yobul len yobul len ma sama yaay reer waye ku dem do delu ndak ndax digeenti pal ak ndorna digeenti bobu ay gaay ki buki kesse ci nekkoon sëñ Kaajaar man diko ko kuréel xamni ni li bu continuer gaay a jeex yobul reer do delu ci wala bo yobbo ba egg dootoo ñew mu ne dal de nak ni amna ko xamni xam la jambar la deram di beut waye lepp luy sel bu ko limu wax ke dara dotu maté lu am sel dotu maté ci la jëli nak doomu ndayam muy mësu ko job ci kër muur ndax fekkon nak mësu ko job amoon soxna mamu mom job mi mo tawlo yaasin job ci kër muur job mo sey mbi mbiloor kep ka sante gay mbi mbiloor ci yaasin job la jóge waye mën di ko ko rege dafa nek bayil fekk sama gaay bi mu ñëwé mu may ko soxna ci biir paal tawlo ci soxna kon yaakaar naa ni waaye ci rek ba ma suko jóob ñëwé limu jëk def rek ci njambar fi kër Baye Daraw nek digënt kër Ali Ngom Jaañ gi ak kër Baye Daraw mu mag bu fa nek ngaw yoyu ñono mag suñu mamati mam lañu ñu waye waaye ma suko jóob dafa ni gaynde sibi gi mu ci biir suma ma yuuxoo ni fa boole leen maag sox ak xej yi ma ak gaynde gi mo gaynde gi ba rendi gaynde gi jénne ci biti gaay nak dogal lewat kon mo Diop sa mam def na jaloro jooju ci gaay ci la ma su ko ci la nag mas ma ndikku faal ko reggey daal dee puus pal dugal njóobeen motax nga gis fa njóobeen place ci pal mu nek nag garde nag garde rapproché wu buur bi ñom ñi ñoy garde rouge ñoy ñoy yore palais ba ñoo kenn du kon ablay yaakar na ni gor gui ali mbol suñuy wax ci mom a ah, fi lu ñuy fanaan kenn ku nekk bëgg na ci def témoignage ñu luñ doon jëmmal moy gaay ak mbiloor ali mbol radiyallahu taala nu mo lele gaay ak ndax Ahmed Seyni Mbodj Mbilor la bokk Ahmed Seyni baayam ma jaxeer Mbodj maamam moo libéré jël sos Mbilor en 1737 kon kooku tey su jëli dëkkee ca Mbilor ñëw gaaye denc fa roqee ñang bu faatu ay bàll kooku yaakaar naa ni lëkkale ne gaaye ak mbilloor kon yéen waa gaaye gaaye yi may dégg bu leen demee mbilloor xam leen ni yéen a bokk waaye moom sëtu barak la sëtu dëcce njéegu la sëtu almaami Abdou Khader kan la sëtu njaajaan njaay la sëtu jëdin ñang la kon yaakaar naa Ablaye dañuy def pause dugal quelques témoignages ndax góor gi alaaji ma dikk ñang dafa nekk fii di kilifa Mauritanie daal noo woo téléphone ñu ni kër noonu laa déglu kon balaa kenn sànni kàddu ci Aliou moom dañ ci sànni kàddu jotoon nañ ko jotoon nañu ki nga xam ne tam muy góor gi Sidi Diop mais carak dafa ñëw rek kër ga sama bàyyee waaye sama bàyyi Modou Fall may ramañan moom la sama bàyyi toog ca mbaar ma ndekete Modou Diop xam ne ni la ko desee ci àdduna bareetul te am na doom ji léegi mu ni Cheikh no ak sot sa bay Modou fa la ngi ni tok ci ban bi yaa bay Mauritanie bàyyi loolu la ken xop sopal ñëpp fonkal ñëpp ne lepp loy def jikel deglu sa bay Modou fa ba pare su ne waw ñu def bu ne deet bul def ñaari at luñ ci tek gor gi nelaw kon ki tay lu kawela ci man waye barana fi bay Serigne babakar sawum ñu lay nuyu yéene na ni Gaya Info ki ñu tànn ni ko duñ lay defal jëlewuñ ko ci pour mu am xaalis wala amul xaalis ñun xaalis taxuñu jóg li ñu jox a jóg mooy lëkkale mbokk gi ku xam sa bopp li ñu tax a jóg mooy kenn ku nekk xam ni ku ñu defal rek jéemu la ñu tànn Serigne Babacar Sow ni ko dañu bëgg sa jaar-jaar waaye ca rek am nañu jaar-jaar bu riche jaar-jaar bu neex. kon yaakaar naa ni moom ci boppam sax xamul woon boppam ci Nouakchott nu mu toll ci nit ñi ak naka mi ñi fonkee adduna bi kenn ku nekk di woote kon loolu moo waral tey jii ñu dellu siwaat ci émission taarix may nuyu Média Pro di ko ñaanal yàlla ndax tey jii ci télévision yi mag yi la nekk e waaye di doomu Moon Njaay Sall di sëtu Umar Sall kon koku bu ko gaay info soxloo duna ñaan intervention duna ñaan dara du noon ko ñewal sa alal mu baye lepp ni ndokel ñi may déglu caravane gaay bi nga xamni muy centenaire mam maam Seydi Hadji Malick kon ali mbo ñu ni doon waxtaanal émission gis nga nitu yalla kenn du ko xam waye kuy dox ku nekk rek jappal sa bop ni nitu yalla centenaire maam Seydi Hadji ci biir suuf caravane bi jógee Dakar jaar Tivaouane ak fu ñu jaar yëpp ba dugg gaaye gaaye yaakaar naa ne démb kenn ki nekk yëg na boppam. foo bokki gaaye info auditeurs yeeg auditrices yi comme liñ leen indiloon tey jii ci taarix taarix bi ñu indi nag tey ñu doon fàttaliku suñu géer gu baax googu dégg ngeen témoignage yi ñu fi def muy radiyallahu taala anhu muy Cheikh Alioune Mbodj kooku nag macha allah fa tabarakallahu baax rek la doon def ci bu muy dund. ba làqu ji wuyu ji boromam tey nag ñu ñëw Nouakchott ci caravane 2022 ak si fii ci Nouakchott ci kër doomam di taawu Moustapha Mbodj dégg ngeen tam mbokk yi liñ ci jox waaye lépp luy xeetu mbaax ak teraanga defal nañ ñu ko émission taarix nag yaakaar naa ni kii ñu waxtaanee tey lëkkale na waalo ak gaaye waaye lëkkale na Fuuta ak gaaye waaye lëkkale na tey jii Mbilor ak gaaye tax na sax gaaye am ci deretu barag yi ndax Moustapha Mbodj mi tax Aly Mbodj maamam moo jëkk créer en 1733 37 ci la sos Mbilor kooku tey jii eh, nga xam ne tey sëtam lañ doon waxtaan yi gars yi yëpp daal di see gis seen bopp waaye lu ñu wax rek nga gis ne Aly Mbodj mi ñu doon waxtaan yi mbokk Sénégal la waaye mbokk Fuuta la mbokk Waalo la mbokk ñëpp la Nouakchott gii nag def na fi teraanga yu bare dégg ngeen témoignage yi léegi kon yaakaar naa ni ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen mag ci beneen titre waaye di gërëm nag bokki Nouakchott yëpp ci caravane Gaaya Infos di gërëm suñu chauffeur bi nga xam ni Abdou Ndiaye moom nañu yàlla booleel wax dëgg yàlla waaye di gërëm Moustapha Mbodj gannaaw bu mu jëlee lépp ci transport u Gaaya Infos kon moom itam ñu koy delluwaat di ko gërëm defoon na ko daaw nag bu ñuy dem Nouadhibou defaat na ko ren yan na ko defaat ay dëwëni dëwën ñuy gërëm nag waa Gaaya Infos yëpp di gërëm Abdoulaye Ndiaye Ousseynou Guèye mi nga xam ni moom itam suñu njaatige caméraman bi ñu jàkkaarloog man muy Média Pro bokk ci télé yu mag yi waaye itam di gërëm Mayoro Guèye journaliste di Diop journaliste Didier Dame Ndiaye le technicien ñu tey ñoo ñëwoon fii ci Gaya Info fekk waa tam muy gàmm goo xam ne def nañ ko biig gis ngeen la fa xew yëpp ci baax la fa xew yëpp ci xéewal muy gàmmu zakirin allah wa zakiraat bu sëriñ Babacar Sy Abdou suñu waajur bu baax boobu yal na yàlla yeesal yërmandeem muy alaaji Basiru Ba moo sosoon daayira ba ñetti baat rek la leen waxoon bu leen ci toggee ganaar di ngeen dem ba togg ci nak waye di ngeen dem ba togg ci gilem loolu yëpp yalla def na bi ke ñew ci tante bobu seen na ni tante bobu lu mu fatali moy tante gamu gaay ñepp ñu PK yëpp ñew jullit yëpp ñew mam Ousmane si ñew bu jak saw waye tam Souleymane ba waxtane waxtaan bi Dagor mbay ak njabotam wëy wëy ablay ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm itam waa gaaye info yëpp. di leen ñaanal yàlla di leen jox dig daje ba doon ci jàmm waaye di gërëm itam sëñ Kadiar Mot Fall Mayrama Ñang mi nga xam ne bokk na si suñu kilifa yi nekk fii ci gaaye suñ ko waxee nag nuy nañu waa Nouakchott yëpp di yeesal ñaan di koy ñaanal suñu bàyyi jooju Alaaji Madické Ñang yal na yàlla dolli wéram wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.